ñu ngi toll woon ci buntu miraasul jaddi mahal ixwa noppi woon nañ ci mbokk yu góor yi nan lay maam di dem ak ñoom ba toll woon ci masala bi ñu tuddee al akdariya te mooy maam ji bu fekkee dafay nekk mbokk mu jigéen ak ñam yàndal jeexaloon nañ ak akdariya boobu ba tegoon ci place boobu mbokk mu jigéen nekk bu fekkoon mbokk mu góor dafee nekk nan la ñuy donde te mooy masala bi ñu tuddee almalikiya ci lañ yemoon ñu war a tàmbalee tey mooy place boobu mbokk mu jigéen nekk tey bu fekkoon li ñu tuddee alxunsa mushkil dafa nekk nga xam ne am na côté boo koy xoole maanaam day mel ni ku yor cërub góor yor cërub jigéen dal kooku bu bu nekkoon ci place su masalam ak dariye mii na lay doon de masalam ak dariye bi moo doonoon miraas boo xam ne jëkkër dafa nekk mbokk mu jigéenum ndey ak baay nekk fa yaay nekk fa maam bu góor nekk fa ñu ne woon bu jëkkër jëlee nisif yaay day war a jël sulus maam war a jël benn mu war a jeex te mbokkum ndey ak baay mi war naa doon nisif ñu war koo def awlu muy sompo mu doon juróom-ñeent ñett yi mbokk mu jigéen mi am ak benn bi maam ji am moom lañuy ñu war a boole moom maam ji ñu séddoo ko góor ñaari jigéen benn gisoon nañ ne foofa loolu day damm du neex a séddale ba am na nu ñu waxe woon ne na lañ koy lijjantee esu woon nañ ko ci ginnaaw léegi nag tey ji masala moomu bu fekkoon danga fa amoon jëkkër ak yaay ak maam bu góor ak koo xam ne xun saala dafa am cërub góor ak cërub jigéen nan lay doon de moom la war indi nii su ko defee saa moom xëy na dana ko indil buntu ca kanam jamono bu ne ni muy doon de mooy cërub góor ak cërub jigéen dañuy lam war a am dañuy xool bu doon góor genn wàll ga ak bu doon jigéen genn wàll ga ñaari genn wàll yooyu boole jox ko ko ndax moom du góor gu leer du jigéen ju leer ndax dañuy nattale ne bu doon góor lii lay am ñu war a xaaj loola jox ko ko nattale ne bu doon jigéen lii lay am ñu war a xaaj loolu boole ñaari genn wàll yooyu moo war a nekk ab doon dondam ci miraas moom man di doon léegi nag kon bu nekkee ci place bi tey nan lay demee moom la ne in takkun dem dafa nekk xunsa ngullingaana atat di dikk maxallaha ci barabu jigéen jooju kooku fa yufradu def na dogal bil unosiyati ci jigéenu ga laha ñeel ko wa yuxramu te dee fi ko xañ bi zakoriyati ca ga wala yara du gis minal miraasi ca doon shay an dara mus jalan mandi doon masala mi bu fekkoon fi mbokk mu jigéen mi nekk saa dafa nekk su boobaa dañ koy nattaleel ñaar dañuy nattale ne góor la su nattalee ne góor la nag xam nga ne wërta doon dara ndax masala mi niñ ko weesoo woon ci ginnaaw muy maalikiya bi su fekkoon góor a fa nekk du dond ndax da doon xaaru def te dara desut ndax boo ne euh, nisif muy jëkkër nga jox ko ñett nga ne sulus muy ñaari nga jox ko yaay dangay ngay wax sudus muy benn nga jox ko maam mbokk mu góor mi ndegam ni mi doon de mooy xaaru des foofu desul dara day ñàkk bu doon mbokk mu jigéen nag xaarutu des day war a amu cër moo tax ñu tuddaloon ko cër léegi nag kunsa bi kon boo nattalee na góor la da wax ne côté góoram moom da ci ñàkk moo tax genn wàllu góor gi ñu ko waroon a jox du ko am soo nattalee ne jigéen la nag côté jigéen bi moom du ci ñàkk moo tax nag kon genn wàllu jigéen gi nga xam ne moom la war a am danañ ko ko jox kon léegi fii ni mu demee mooy boo joxee jëkkëram jox yaay ab cëram tudd cërub maam tege ne ah, xunsa bi da nga naan ci côté góor gi du ci am dara ci côté jigéen gi war na cee am genn wàll genn wàllam googu mu war a am nag mook cërub maam la ñuy boole su defee ñu seddale leen ko ñoom ñaar muy góor ñaar jigéen benn moom noonu lay donde lol lan lañ koy defé motax mu ne fa farduha kon ab nisfu nasibil unsa moy genn wàllub cirub jigen fil fardhi ci masalama ci natale ga manam la fi hukmiha wu ca ci atemba in xunsan ndem dafa nek di ngulli ngana mi ngoog kon dañuy japp ne mom du gor kon ci atep manam dañuy dañuy natale ne gor la bu natale ne gor la ci àtte bobu ñu natale ne gor la bu da ñàkk ñu nattale na jigéen la waaye nag ci wàllug na jigéen di doon de am du nekk jigéen ji wér dal moo tax genn wàllug cërub jigéen rek lay doon soo de moom la jublu ci fil fardi laa fi hukmiha kenn du ko jox àtteb jigéen ji wér a wér jox ko nisif bu mat comme niñ weesoo woon bu doon jigéen waaye dañuy nattale ne bu fekkoon jigéen la lii da war a am loola ñu jox ko genn wàll ga kon fii moom noonu lay doon de cërub góor gi ñàkk na ci cërub jigéen ji xool nañ genn wàll ga ñu war ko koo jox mu war a nekk ab dondam ndax comme ni ma ko waxe woon ñaari genn wàll yi la waroon a boole genn wàllu cërub góor ak genn wàllu cërub jigéen waaye genn wàllu cërub góor gi moom day mel ne da ca doon xaaru def dara desut genn wàllu cërub jigéen ji nag moom xaaru ciw def moo tax dañ ko ko war a jox léegi nan lay demee mooy wa awluha sompam nga bi sabaatin nekk na ci juróom-ñaar wa nisfin ak nisif xam nga ba mu nekkee jigéen ji wér dañ woon juróom benn yi fi nekk boo jëlee ñett jox jëkkër jël ñaar jox yaay jël benn jox maam day jeex ñu ne woon dañuy def awlu yóbbu ko juróom-ñeent ngir mbokk mu jigéenum ndey ak baay mën am ñett muy nisfam léegi nag fii moom ndegam du jigéen ju mat xunsaa la ñett genn wàllam la war a am muy genn wàllu cërub jigéen ñett nag boo ko doon xaaj day nekk benn ak genn wàll moo tax kon léegi juróom-benn yi bul ci yokk ñett fii mu dee ki fi nekk xunsa la benn ak benn ak genn walla nga ci yokk mu daal di nekk juróom-ñaar ak genn wàll kon li nga waroon a séddale juróom-benn war a jox jëkkër ñett war jox yaay ñaar war a jox maam benn mu des xunsa bi nga war koo jox genn wàllu cirub jigéen da nga koy yokkal benn ak genn wàll léegi nga séddale ko kon juróom-ñaar ak nisif waaye xam nga ne juróom-ñaar ak genn wàll neexut a feddale ndax ci miraas moom saa yuñ tuddee cër boo xam ne bu dàmm la bu matut la rek dañu seet nuñ koy lijjantee ba mat te genn wàll matut ab cër moom la ne wa inturi ndem da nga bëgg taqsimaha séddaleem nga bil wasfi ciw melo fahiya moom minal astaari ci ay xaaj xamsata asar fukk ak juróom la bi awliha ci sompom nga lakinnaha waaye moom laa yaftaqiru du sax min duni xamsatin ci lu dul juróom wa yi nag ñeent fukk taqsimuha séddréem nga fahaaka jàppal tabiyinan ak biral léegi nag foofu mu bëgg laa xamal ne la boo bëggoon a séddale masala moom yaa ngi war a tàmbale ci juróom-ñaar ak genn wàll waaye juróom-ñaar ak genn wàll yi la nga ko waroon a def da nga ko yóbbu fukk ak juróom li tax nga koy yóbbu fukk ak juróom mooy genn wàll moom nekk na fi ba noppi léegi juróom-ñaar yi ci des da leen di soppi ay genn wàll ñoom ñëpp te mooy benn bu ne nga xaaj ko ci digg bi xam nga juróom nag boo ko defee ñaari xaaj maanaam benn bu ne nga xaaj ko ci digg bi day nekk fukk ñeent fukk boo ko boolee genn wàll gi fi nekkoon naka jekk mu nekk fukk ak juróom kon juróom-ñaar ak genn wàll nga jël genn wàll gi juróom-ñaar yi ci des tamit benn bu ne nga def ko genn wàll mooy astaar yooyu mu wax soo defee juróom-ñaar nga xaaj ko ci digg bi day nekk fukk ak ñeent nga boole kook benn boobu mu nekk fukk ak juróom fukk juróom yooyu boo leen ko doon séddale ni mu war a demee mooy da nga war a wax ne jëkkër ba mu nekkee juróom-ñaar ak genn wàll ñett la ci amoon léegi bi mu bi woo nekk fukk ak juróom kon la ci war a am nga ne yaay ba mu nekkee juróom genn wàll foofa ñaar la fa amoon kon ba tey bi mu duble woo nekk fukk ak juróom ñeent la fi war a am nga ne maam ju góor ji ba mu nekkee juróom-ñaar ak genn wàll benn la fa amoon léegi bi mu nekkee fukk ak juróom kon ñaar lañ ko fi war a jox nga ne mbokk mu jigéen mi ba mu nekkee juróom-ñaar ak genn wàll benn genn wàll la fa amoon kon bi mu doublé woo soppi ko fukk ak la fi war a am ñaari la amoon su boo boolee ñettam yi mu am ak ñaar yi nga xam ne moom la maam ji am muy juróom ñoom ñaar moom la ñu war a seddoo góor ñaar jigéen benn waaye ba tey loolu mënta séddali ko ndax xam nga juróom moom boo ko doon séddale ñaari nit ñetti nit góor ñaar jigéen benn moo tax ñetti cër nga koy war a def juróom boo ko doon séddale ñetti cër xam nga ne boo joxee kenn ku ne benn ñaaree ci des day damm faaw mënee su ko séddale mu séddale ko séddale bu normal moo tax nag kon ba tey nii lañ koy lijjantee mooy faaw ci quarante cinq lay mujje luy tax mu mujjee ci quarante cinq mooy dangay wax ne fukk ak juróom yi ma amoon bëgg ko séddale tam damm léegi ñetti bopp yi nga xam ne ci seen côté la damme te mooy góor ñaar jigéen benn bi war a am ci maam jeeg mbokk mu jigéen mi ndegam ñetti bopp lan kon damay jël fukk ak juróom ma multiplier ko ci ñett yooyu quinze boo ko multiplier ci trois moo lay jox quarante cinq kon ndegam fukk ak juróom nga doon séddale am ci ñaar ñoo xam ne dañoo am juróom te war ko séddale ñetti cër mu bëgg a damm kon da ngay jël fukk ak juróom yi léegi nga dóor ko ci kaw ñetti cër yooyu nga multiplier ko ci kaw ñett cër yi mu jox la quarante cinq boo joxee quarante cinq nag boo ko séddalee mu daal di wér léegi boo koy séddalee da ngay wax ne kenn ku ne la nga waroon a am ca fukk ak juróom ya dama la koy multiplier ci ñett mii nga xam ne ca moom laa multiplier woon fukk ak juróom yi nga ne jëkkër loo waroon a am ca fukk ak juróom ya mu ne la juróom benn nga ne ko multiplier naa ko trois muy dix-huit nga jox ko dix nga ne yaay loo waroon a am ca fukk ak juróom ya mu ne la ñeent nga ne multiplier naa ko trois muy douze nga jox ko euh, douze nga ne euh, ki ci topp maam ji ñaata nga waroon a am ci fukk ak juróom ya mu ne la ñaar nga multiplier ko ci troit mu jox la six mu jox la six waaw nga ne mbokk mu jigéen mi ñaata nga ci waroon a am man nga mën nga leen a boole ñoom ñaar sax nga ne maam ji ak yaay ji cinq la ñu waroon a séddoo nga multiplier leen ko ci troit boo leen ko multiplier ci trois dalay jox quinze bu la joxee quinze nag boo leen ko séddalee ñoom ñaar day wér ndax xam nga ne quinze boo ko doon séddalee ñaari nit te kenn ki war a jël ñaari xaaj yi kenn ki war a jël benn bi kenn ki day jël dix kenn ki jël cinq rek ndax quinze ñetti cinq la kon ñaari cinq yi mooy dix yi moom la maam ji jël benn cinq bi mooy genn wàll gi moom la mbokk mu jigéen mi di jël soo defee nag wàll gi muy multiplier bi boo seetloo du càgginu alal ja dafa yokk wala dara waaye nañ ko waroon a seddalee moom lañu def saam yu gën a bari rek ngir mu nangoo séddale ko waaw la ñu waroon def juróom-ñaari cër ak nisif séddale ko moo nekk loo xam ne buñ ko séddale woon genn wàll gi génn day nekk damm-damm ñu ne nañ seet beneen anam buñ ko séddalee moo tax ñu far ko séddale léegi fukki xaaj juróom su ko defee kenn ku ne la nga waroon a am ci juróom-ñaar ak nisif yi ñaaram ngay am ci fukki xaaj ak juróom waaye même loolu boo ko defee it boo demee ba toll ci maam jeeg mbokk mi juróom yi ñu war a séddoo moom itam day am problème day am jafe-jafe nga ne waat kon nañ bàyyi fukk juróom yi ñu ko waroon a te jël fukk juróom léegi multiplier ko ci ñett ñett yi nga xam ne ñoom ñoo am problème te mooy ñaari cëri maam ak benn cëru mbokk mu jigéen ko ci multiplier mu jox la quarante cinq kon la nga waroon a séddale juróom-ñaar ak genn wàll léegi séddalikoo na quarante cinq loolu nag kenn ku ne noo ci xamee la nga waroon a am mooy da nga naan bi ma ko defee quinze kenn ku ne lam amoon léegam trois ci la multiplier quinze yi ba mu dem ci quarante cinq ba tey kenn ku ne la nga amoon ci trois moom laa de koy multiplier rek mooy tolloog sa cër nga jox jëkkër dix huit xam nga ne dix huit mooy genn wàllu quarante cinq mu daal di jël nga jël douze mooy solus ba nga jox yaay nga jël quinze yi ci def boole ko maam ji ak mbokk mu jigéen mi maam ji jël diis yi mbokk mu jigéen mi damay wax mbokk mu jigéen rek waaye mooy xunsaa bi nga xam ne genn wàllu cërub jigéen la war a am nga jox ko cinq yi ci def kon loolu moom lañ koy lijjante waaw kon ginnaaw bu noppee ci lu jëm ci axma al ixwa yaakaar naa yi caaju woon ci masala yëpp jeex na masala ba ci njëkkoon mooy bu fekkee dafay nekk ak ay mbokk foofa lijjanti woon na ndax mbokk yi ci benn côté lañ nekk muy mbokki ndey ak bàyyi kese lañ wala mbokki bàyyi kese lañ ndax mbokkum ndey kese taxul ñuy wax moom foofu mbokkum ndey kese bu fi nekkee maam du doon kon mbokki ndey bàyyi ak mbokki bàyyi bu fekkee yenn façon mbokk yi la fa nekk it lijjanti woon na ndax ñoom kese ñoo fa nekk ñoom ak maam ji wala nekk nañ fa ak boroomi cër waxoon nañ ne bu fekkee ñoom kese ñoo fa nekk ñoom ak maam ji bu neexee maam ji mu seddoog ñoom bu neexee maam ji mu jël sulusub alal ja waxoon nañ ne ay am nay masala yoo xam ne mu seddoo mooy gën ci moom am nay masala yoo xam ne mu jël sulus mooy gën ci moom am nay masala yoo xam ne ñaar yëpp ay yem ci moom ñu tegoon ci bu fekkee maam ji dafee nekk ak mbokk yi waaye am na ñeneen ñu leen rax ñu ne woon foofu it su neexee maam ji njëkk ñuy seddale ñu def alal yëpp juróom benn xaaj mu jël sudus ba bu ko neexee mu bàyyi ba borom cër yi jël ba noppi mu jël solo baax baaqi la ca des ñu xaaj ko ñetti xaaj mu jël benn bi bu ko neexee tamit mu bàyyi ba ñiy jël jël cër yi ba noppi moom mbokk yi ñu séddoo nag bu ne bu ko neexee rek mooy kii miraas mooy tànn la gën ci moom mu def ko ñu ne nag bu fekkee dafay nekk ñaari façon mbokk mel ni mbokki ndey ak baay ak mbokki baay waxoon nañ foofa nan lay deme te mooy muaddabin waxoon mooy mbokkum nday ak baay muy góor wala muy jigéen day waññaale mbokkum baay ma kese su waññaalee mbokkum baay ma ba noppi nag la mbokkum baay mu waroon a am da koy nangu ndax moom bu fi nekkee mbokkum baay du dond su fekkee mbokkum nday ak baay góor la la mbokkum baay ma waroon a am lépp lay jël su fekkee mbokkum nday ak baay mi jigéen la nag su seddoog maam ji ba nopp ba waññaale mbokki baay ya su noppee cërub jigéen rek la cay jël te mooy bu dee kenn nisif la bu fekkee ñaar la nu solo saani la ca des mu delloo ko doomi baayam yooyu tuddoon nañ ne bu fekkee foofu mbokkum nday ak bàyyi nekk nag da caa boole mbokki nday kese nekkaale fa waxoon nañ ne foofu moom maam ji da koy daaneel te mooy maalikiye bi nga xam ne moom lañ jàngoon ñu teg ci nag bu fekkee foofu yi nga xam ne fi la mbokk mu jigéen mi ah, almasalatul akdariya la bëgg a wax teg nañ ko ci te mooy maam ji bi mu fi nekkee benn mbokk mu jigéen ak yeneen borom yi cër yooyu dañu wax ne benn masala boobu rek mooy bi nga xam ne dañuy tuddal maam ab cër dañuy tuddal mbokk mu jigéen ab cër te mu nekk feek maam lu bokkut ak loolu rek dee su ko tuddalub cër te même foofu sax buñ ko tuddalee cër ba noppi cër bi mu am dañ koy booleek cërub maam ñu séddoo ko ñoom ñaar góor ñaar jigéen benn waxoon nañ la masalam foofu mbokk mu jigéen mi nekk bu fekkoon mbokk mu góor a fi nekk day daanu ndax day xaaru des te dara du des moo tax ñi mujje tey jii nag tey bu fekkoon ab xunsa dafa nekk xam ngulli ngaana moom lañ ne boo ko seetee ci côté góor gi day daanu boo ko seetee ci côté jigéen ji du daanu te xunsa ni muy doon de mooy genn wàll ciru góor ak genn wàllu ciru jigéen kon lam waroon a am ca bu doon góor da koy ñàkk lim war a am ci bu jigéen nag moom lañ koy jox moom lañ doon lijjanti nii nan la ñuy def nag ba jox ko ko bay doog a noppi ñu jàll ci beneen bunt kon mooy miraasu shaqiqi wal axi li abin mu ne nag summa shaqiqu topp xarit aasibun aji asabal la li maali ñeel alal ja muasibul unsa ta aji asaballoo jigéen la fi kulli xaalin ci bépp melo ak dafa bokk ci ñi asabal bu fi nekkee moom kese léppi alal lay dond su fi nekkee boroomi cër boroomi cër yi dañuy jël seeni cër ba noppi la des moom mu jël ko bu desul mu ñàkk bu fekkee dafa ànd ak jigéen mel dafa ànd ak mbokkum ndey ak baay mu jigéen ni moom day asaballoo jigéen joojee jigéen ji kenn dootu ko tuddalub cër ndax waxoon nañ ci gannaaw ne góor ak jigéen suñ fi nekkee te tolloo jenn daraja góor ga da koy asaballoo moo tax fii góor gi day asaballoo mbokk mu jigéen ma mooy mu ànd ak moom xaaru def ñu seddoo góor ñaar jigéen benn ne waxuwa moom mbokkum ndey ak baay moomu nag yox jabu def na ko yiir xonaa fii kama nuqila ni ki tuxaleef ko bil abi ci baay wab nin ak doom wab nihi ak doomam wa in safula ak doonte suufe na mbokkum ndey ak baay nag ñi koy daaneel ci miraas ñi la bu fi baay nekkee daanu na mbokk du doon dandoog baay su fi doom ju góor nekkee daanu na su fi sët bu góor nekkee bu bàyyi ko ci doom ju góor daanu na waaye in safu la mooy bu doon sataataataat jëm suuf sax du tee rek moo doom ju góor ji nekk fi rek ñooye moo benn atte day daanu kon mbokkum ndey ak bàyyi ñooñu du doon lan ak ñoom bàyyi bu fi nekkee ñàkk na doom bu fi nekkee ñàkk na sët bu bàyyi ko ci doom ju góor doonte sataataat la bu fi nekkee ba tey mbokkum ndey ak du doon nga yokk ci wabil ximaariyat ak ci li ñu tuddee masala imaariya te mooy ma ixwati ummin ànd ak mbokki ndey xadd saaraku bokkaale nañu kullan képp fi maa fii kulli maa ci lépp loo xam ne xadd xusima seddaleef na ko man nga cee teg rek wa sawju ak jëkkër wal ummu ak yaay bi haadihi tarika ci bile mbateef mooy ci li ñuy seddale li ñu li faatu bàyyi aw jaddat wala maam jigéen wa haadihi li al mustarikatu mooy masala mustarika am na beneen barab boo xam ne ba tey euh, mbokk moom ndey ak baay mi nga xam ne da doon xaaru def day war a ñàkk ndax dara du def waaye nag dana am nuñ ko lijjantee ba mu am te loolu mooy li ñu tudde al masalatul mustarika mooy mbokkum ndey ak baay dafee nekk maa ixwati ummin mooy nekk feek mbokk yu mbokkal yaay kese waaye nekk feek jëkkër nekk feek yaay ci boppam wala maam ju jigéen masala moomu boo ko doon miraas da ngay wax ne jëkkër mi fi nekk ndegam amu fi war naa doon nisif kon siis la ñuy déparé jëkkër ñu jox ko ñett muy nisifam yaay ji foofu ndegam mbokk yi dañoo limu sudus rek la war a kon yaa ngi war a séddale siis ba tey mu jël benn kon siis yi kaat génn na ci muy ñetti jëkkër ak benn bu maam mu des ñaar mbokk yi ndey yee ya ñoo ko war a doon ndax ñoom buñ xasee limu sulus lañ leen di jox ñu séddoo te fii kon ñaar mooy sulusub juróom-benn boo leen joxee ñaar nag juróom-benn yi jeex na takk ñetti jëkkër benn maam ak ñaari mbokk yi su ko defee mbokkum ndey bàyyi baay mi da doon xaaru des desut dara masala moom nag dañ ne dafa njëkkoon a am Seydina Omar noonu la ko miiraase woon dane ndigam moom ni mu war a doon dem mooy dafa war a xaaru des te yàlla dogal na desut dara kon dafa war a ñàkk dal di ñàkk bam delluwaatee am nag mbokkum ndey ak baay moom yi dafa ñëw ci Seydina Omar keneen ki mujj dal daal di koy wax ne ko waaw léegi sama doomi ndey yee moom ñee nga xam ne man ak ñoom ak néew bi ñoo bokk ndey li leen tax di dond mooy yaay jiñ bokk man li ma nar a xañ mooy baay ndey ak baay gi ma bokk ak moom tax ma doon xaaru def léegi dañ jàpp ne sama baay mbaam la walla xeer wum sànni ca géej ga la moo tax danañ ko tuddee al yamiya ak alxajariya mooy nañ jàpp ne sama baay mbaam la wala xeer la wuñ sànni ci géej gi rek su ko defee ma jàpp ne maa ñoom ñoo bokk yim daal naa jàpp ne léegi amatuma baay su ko defee kon mbokk yee maa ñoom ñoo bokk genn yaay ji Seydina Omar dal di àttee loola dal di koy boole ca mbokki nday yam bokkal nday dal di bokk miraas ma foofu nag dañuy séddoo bu ñuy séddoo nag du am góor ñaar jigéen benn ndax miraasub doomi ndey moom noonu lay demee jamono bu ne lañu am dañ leen koy jox ñu séddoo ko te dañ ci yemoo képp amul góor ñaar jigéen benn loolu yi moo tudd almasalatul mushtarika kon seetlu nga ne fii mbokkum ndey ak baay mi nim daan doon de mooy xaaru def léegi yàlla dogal na xaar na waaye desut dara waaye nag ña ko xañ ña tax desut dara ñooño moom ñoom ñoo bokk jenn ndey ndax doomu ndey bul fàtte ne moom ab cër lay am waaye xaarutu def léegi nag moom fii mu nangu ne amul baay te ñee moom ñoo ma bokk yaay kon day dem far bokk ak ñoom yaay benn ñoon rek Seydina Omar daal di àtte loolu jàppi leen ñoom ñëpp léegi ñuy mbokki ndey jàpp ne kee baay bi ko naroon xañ na jàpp na léegi amatul baay su ko defee mu dal di bokk ak ñoom ñoom ñëpp ñu seddoo ko comme ni doomu ndey di donde te mooy yamoo ci képp loolu mooy al masalatul ximaariya wala al yamiya wala al xajariya wala al omariya wala al mushtarika yëpp danañ ko ko wooyee waaw mu ne la nag walaysa maahu déen muy ànd ak moom mbokk moom tas saqiqati ni ki xarit miraasun dond mata yakun saa yu nekkee hunaaka foofee faraun bangaas min inaasin ciy jigéen masala mii nag bu fekkoon doom ju jigéen dafee am wala sët bu jigéen jàppal ne mbokki nday ya ñoom ñàkk nañ mbokkum nday ak baay góor wala muy jigéen ka saqiqati ñoo ci yemoo moom mooy dond léegi doomu nday ja ñàkk na ndax xam nga mbokki nday moom waxoon nañ ci bañ tollee ci seen buntu miraas ni ñu doon ne lay tax ñu doon mooy bàyyi wala maam jëm kaw amu fi waaye doom wala sët wala sataat amu fi ñooñu saa yu ñu fi amee rek moom day ñàkk kon masale mii nga toll nii su fekkoon sët bu jigéen dafee am wala doom bu jigéen am fi kon nag léegi mbokkum ndey ak baay ma mooy dondu ak mbokkum baay wala boog mu moo xam góor la wala jigéen laa bëgg a wax mbokkum ndey ak baay moo xam góor la wala jigéen waaye mbokki nday yee kese ñoom dootuñu doon tey bu doon fii jëkkër day war a am rubon yaay ji war a am sudus euh, doom bu jigéen bi wala sët bu jigéen bi war a am nisif la ca des mbokkum nday ak baay ma muy góor wala jigéen daal di koy asabal waaye mbokki nday yee kese ñoom daanu nañu duñu am dara wal axu mbokk lil abi ñeel baay kahuwa mi ngi mel ni mbokkum nday ak baay in fuqida ndeem ñàkkeef na ko fi xayri mustarikatin ci dudul masalam mustarika su maatamid topp na nga jublu wala na nga sukkandiku mu ne la nag mbokkum bàyyi kese jàppal ne moom mbokkum nday ak bàyyi bokk nenn nu ñu doon de li nga waxoon ci mbokkum nday ak bàyyi day asabal bu fi nekkee moom kese day jël lépp alal ja bu fi nekkandoog boroomi cër day xaar ba boroomi cër yi jël mu jël la ca def jàppal ne nit bu faatu woon bàyyi ku mbokkal bàyyi tamit kooka noonu lay doon de bu fa mbokkum ndey ak bàyyi nekku rek moom mooy taxaw taxawaayam day jël lépp alal ja bu moom kese la bu dee yeneen boroomi cër dafay nekk bu boroomi cër yooyu jëlee ba noppi mu jël la ca des su àndeeg jigéen tamit day asaballoo jigéen di jigéen ju mbokkal baay da koy asaballoo ñoom ñaar ñu séddoo góor ñaar jigéen benn kon ñoom ñoo yemoo fi leen wuutale rek fenn la mooy ci masala mustarika mii ñu weesu woon bu dee masala mustarika moom bu fekkoon am dara ndax xam nga mbokkum ndey ak baay ma fa nekkoon lay wam layoon doomu baay moom mënu koo lay lay wam layoon ne ñii nara a doon du bi muy mbokki nday yi maa ñoom ñoo bokk ndey kon naa jàpp ne bàyyi amu fi ma bokk ak ñoom ndey rek ñu séddoo léegi bu doon ko bokk ak néew bi baay kese moom su ne maa ngi bi naa jàpp ne bokkuñu bàyyi rek li mu teg kon mooy bokkatuñ dara ndax moom ñee bokkuñu ndey waaw tey bu fekkoon nit dafa faatu woon bàyyi jëkkër bàyyi ndey bàyyi mbokkum baay mii nii bàyyi ay mbokk yu mbokkal yaay kese soo nee jëkkër nisif na yaay na jël sudus kon waaw mu des sulus mbokki nday yi kese nañ ko jël mbokk mee mu bokkal bàyyi danga naa ko yow danga doon xaaru des desu dara dangay ñàkk te mënulaa wax ne la doomu nday yee seen sulus bee dama koy bokk ak ñoom ndax maa ngi ñoom ñoo bokk jenn nday ji ndax bokkut ak ñoom nday kon bokum nday ak baay mi lay wam amon fe moy maa ngi ñoo bokk nday kon damay bokk ak ñom seen sulus bi seddo ko mbokkum baay mi kese mom mënta am lay wo motax bu don ci masala mustarika mi fi mbokkum nday ak baay nek mbokkum bu bokk ak néew bi baay kese mo fi nek kon koka day ñak way du am dara kon fofu lañuy taxawlu bu beneen yoon wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin nabiyil ummi al habibi al ali al qadri al azim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima